yëpp lépp lu ci laaj bi tëjee ko dañu ne am na ci suñu borom jàppale daal te barkeel ko. lu suñu borom baat bi ñu tuddee tuddee ko yoon ñu ci am solo ñu gis gën suñu réew ñu war a xam li ko tax a jóg ak suñu jëm li mu teg ci ko tuddee li ñu war a mel lan mooy dëgg-dëggam lan moo di aw nekkin ci àdduna ak li tax koy jaar jóg jëm ci dara li nga jóg lu mu doon jëm ci mu doon li kon di tur yoo xam ne li ñu tegtale jëmm la joo xam ne am na melo am na ay sar am na dëgg-dëgg melo mooy lan jëmm joo xam ne suñ borom xamal na ko ne ko jëmm nañ la ngir ëllëg adduna di këru rombuwaay boo xam ne këru dëgg dëgg jëm loo fa am ci ko liggéeyee ak dundal bi ñu jàpp jàpp bi ñu jàpp te yi ñu am luy tax ak dundal mën a yëng di bokk foofu la moom mu am ay bëgg-bëgg ba kanam war a dund dajeek ay soxla ay mbokk di fi nekk di am lu ñu laaj muy toll di noppali di tawat di wér di am ay dëkk-dëkk yu ne war a dox di am ko ba lépp nekk ci kanamam ñu gis ne ci nekk bu gàtt boobu fees benn ak yëngatu dañ laa ci def am na gën mu seet ñëw bu ñu ñëw kàttan ci loola xam ne gis nañ ci kanamam boo xam ne boo ko téyee lépp wéy na jëfam dal lay jeex ñu ñu génne kër gii nga xam ne dañu ko tudd kër tudd kër yoo xam ne roo xam ne bii ñu ngi tàmbali jëmmal bi di di dugg ci mbir mi doy waar yoo xam ne xew-xew yi ci am ci yàlla rek ci mbir ma ko mu xam ne lépp xam trois yu bàmmeel te nit di ko di ko nekk saa xam ne bii ko yëppee bàyyi ko fa bàyyi ne di ko xëccee di ko la mën di ko di ko jóg ba kër gis ko xam ne ñoom ñëpp a gis kanamam xam ne dana gis siraat xam ne xëy ba mu jëm boo koy liggéey mu xam ne lépp xam lott bi mu lott ci mën a sànni boppam loolu la ñu fekk ci ko ci tane ndax kooku sañsal ko ay tiis ak i métit yombalal ko jafe-jafe yi àggale ko ci li mu bëgg kooku la ñu tuddee njëriñ njëriñ gis nga xam ne bu ñu fekkee ba xam ni nit jafe ñu yëkkati léppam joxe am amam bët ak dundam yaramam ak moomeelam kooku mooy li ñu tuddee mbir yi ci njëkk ci meloo di trop cofeel bu mu am ci ki nga xam ne ci loolu nga séenu mais moom la yàlla def muy caabi pexeem caabi ba muy ëllëg te di ko foofu te nga xam ne moom la yàlla def muy bind yërmande ci kaw suuf nekk diggante ma ak loolu la ñu am ci moom cofeel boo xam ne day jeexal xolam sax ba leen di ci xëj war ko màggal jox ko xaqam ci màggal jox ko xaqam ci ñett di ko xool xool yi koo xam ne li ñuy wax unitaire maanaam ak ñoom aadama dafa doon ci moom bakkat ba ba rey doomu aadama nekkatul ci moom li di ko jëlee li nga juddoo ñu koy fexe ngërëm bindal laa dama nekk ci moom am na at bu ñu ko at maanaam sart bu ñu ci teg sart bu ñu di góorgóorlu ba nga mën a lépp nga def ko waxtu woo ko defee ah teg pexe taxaw waxtu woo xam ne bàyyi nga ko dara teg pexe lu waroon a toll dina àgg loolu tax fu mu toll ñu di ko war di daj di ko fàttali ndax xoolal ñu doon leen mooy sol lu boo ko dee sol day def ba mu yàgg ñu tilim su tilimee dañ ko war a féetaat buñ ko féetee passé ko borom topp yi mën a xolaat lu mel ne ko dëgëm xool nag luy dëkk muy ne muy xel muy tànk muy loxo lu ci nekk dafa am ak jote ak xel ak ak xol lépp loo xam ne dëkk xool na ko day def taas ci xol lépp loo xam ne nopp dégg na ko mu dem ci xel day taaju ci xol lépp loo xam ne nit def nekk na ko ci ay loxoom gis ko day jeexital ci xol tànkam fu mu ko yóbbu lañ ko fekk xam ko jeexital ci xol yooyu yëpp nag gannaaw ay jeexital la yoo xam ne bu fekkee ne jëmul seen bëgg war nañ koy di ko génne ci xol bi ba mu set ngir leer yàlla mën a dugg koo nga xam ne nag moo ins féetewoo di raxas xol yi di ko nemm ko waxtu wu nekk di ci def la ca war a nekk di ci génne di ci war a na dugg ñu ci seytaane ñu ci bëgg adduna ñu ci bëgg daraja ñu ci kañaan ñu ci soxor ñu ci bëgg alal ak lépp loo xam ne li luy lor doomu aadama la ëllëg nga xam ne day def ay ñuul ñu ci xolam dund bi nga xam ne moo féetewoo war koo raxas bu fekkee ne ki nga xam ne moom lay raxasal xolam topp na ci ndigalam raxas boogee mu ngi raxas xol bi mooy sababas ak pexeem kon suñ toll am na yoo xam ne lii war na koy diggaal rek ki nga xam ne moom la war a raxas xolam mu ngi ni ki xale boo xam ne dañ ko war di nàmpal di ko sang di ko solal yére di ko dugal ci nit bi di ko wattan ci lépp loo xam ne li koy lor la noonu la Cheikh Mourad bi demee daan dem ci biir waxtaan yi ñi nga xam ne noonu la ko Cheikh Mourad bi di defee ki nga xam ne noonu la ko war a defal ndax nit mu doon suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu mawludin yuuladu ala al-fitra wa innama abwaahu yuhayyidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunassiraanihi bépp léer bi juddu yaa ngi juddu ci fitrat al-islam maanaam sag réew xam nga sa borom ndax da suñu borom bindee réew te bindee bi jëmmi ba mu ne alaf ci birab ndax bu dee seen borom booba réew dafa xamul borom ndax di déglu ci yaram yooyu yëpp dañoo daal di tontu ne asakaay yooyu yaay suñu borom ba mu ne nag da nga leen seet natt leen ba xam li ñu wax dëgg rek ñoom nga dundee indi ci àdduna réew mi nekk ñu ci ci kase boo xam ne amul bunt amul frontière di dem ci feneen bi koy gis ñu ne dëgg kese di ko dara kon nag ñu war a teg sa taxaw boobu ba leeru jant bi dugg ci mooy ki nga xam ne dañoo war a yokk xolam raxas ko féetale ko sa wet ba nga xam ne ca la leer ngay jógee ba mu xam boromam mën a fexe ëllëg ci nag li nga xam ne moom lay yaabasaat yi li ñuy gis ci àdduna li ñuy jëfandikoo li ñuy soxla li ñuy waxtaane li ñuy xool li ñuy dégg mooy dox diggante ak boromam waxtu woo xam ne nag dem na ba lëf dox na diggante ba yooyu rek ba yooyu rek wees li la leer boobu mën a dugg ci xolam moo tax yéesa tax ci boppam bu demee ba tiit ba jaaxle xelam dana dem ci yàlla diggante boobu dana jëm ak ci sàggan jiit da nga xam ne jullit la koo xam wala koo xam ne tëmbëre yàlla am na ak ci diine boo mën a nekk waxtu woo xam ne nii dem nga ba jege dee nga xam ne tiit nga ba jaaxle jaax nga amatul benn pexe sa xol dañu daal di dellu ci yàlla ndax sa xol dañu daal di tëb kiiraay yooyu nga xam ne moo ko doon ñëw yëpp xol bi daf koy daal di tëb kiiraay yi day mel ni lu amatul day mel ni lu weex tool yi ba nga xam ne nit ki leer yàlla day daal di dugg ci moom mooy mu daal di mel ne xol bi dafa jàkkaarloo boromam loolu fa idaarati ba fii suuf yi دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا فلما نجاهم الى البر اذا هم كفورا ñëpp na ministre bi sax bi demee dugg ci gaal bi ba ci yudde ñu dem ba gaal bi fokk nar a diit foofu xolam dana daal di dem ci yàlla ndax ñu tax tiit ju mu tiit ñi nga xam ne moo doxoon diggante ak yàlla yëpp day daal di daw maanaam seytaane ni mu waxee woon ne inni jaarul lakum tey jii kat damaa dëkkaaleeg yéen di sa doom aadama li koy lor di ko bëggloo loo xam ne lii ak pexe dem la koy sababal waxtu wax ba nga xamee ne nag gis ne malaayka yi ñu wàcc jóge asamaan malaayka daal di ci ci iblis daal di tiit moom seytaane falama mooy falama taal seet naka sa ala ak léegi daal di dellu gannaawam dellu gannaaw boobu seytaan yi dellu gannaaw te la adduna yi delloo gannaaw te la bëgg dara yi delloo gannaaw lépp day daal di dellu gannaaw bu ko defee dara du def lu dul borom bi foofa nag lay dal di jóg waaye bu fekkee ne du foo xam ne kii ku ngëm ne ci xolam la bu jógee ci béréb boobu lay fa vraiment nag yow muy leen bari dañuy dal di day dal di delloowaat ca ñàkk gëm ba mu ñàkkoon a gëm ci raay bi yow daal di doxat ci digg bi waaye waaye bi nga xam ne ngëmam dafa dëgër ci moom ba nga xam ne melaw woowu mu melaw woon bi mu juree dee te xam ne amatul menn pexe xalaat ci dara bi mu xam ne dee ñëw na kon xelam daj dem ci yàlla melaw woowu lay melawoo bu ko defee nag kooku murid bi diggante boobu ci lay toll fu mu toll rek ndax xam bi mu xam li ci kanamam te mënu ko dara nga xam ne ay alkande la ak ci kii ak ci naqara ci métti te mënu koo saafara ba mu jaaxle ba dem mujj ko koy saafaraal mooy toll ci diggante boobu nga xam ne dafa mel ni yéefar bi wala nit ki dem ba jub dee amatul menn pexe gisatul dara mu xam ne dee dikk na noonu muy delloo ci yàlla noonu lay dëkkee moom melo woowu nag ci la xolam di nekk moo tax muy bàyyi lépp lu mu amoon génn ci lépp lu mu moomoon ba dootu moom dara dootu moom boppam boobaa nag mooy ki nga xam ne inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata nekk ci marta bu moomu jaay na boroomam tabaraka wa taala lépp ak deretam ak ruuxam jënd ko ajanam kooku la ajanam taxaw waxtu woo xamee ne dee na ci diggante boobu du am laaj ko bàmmeel mu mel ne shahid bi nga xam ne ki nga xam ne dafa dee ci jihaar ji ci jihaar yi lislaam nga xam ne du ñuy dem ci jihaar ja def na xelam ci dee xolam génn ci alal jëm amoon génn ci ay këram génn ci ay doomam génn ci njabootam génn ci waasaram génn ci ñëppam nga xam ne dara àddina taqati ko ko nga xam ne kooku bu deewee aajowul sang dara du ko topp aajowul xisaab buy ba kanam jot buy tàbbi àjjana diggante ba bu mu toll foofu xolam toll noonu la al murid bu sadiq xaqan foofu la xolam di toll noonu lay génn ci àddina ñu ne nag bi nga xam ne ne taalib bi dafa am ay sart te war na matal sart yi sëriñ bi am na sart yoo xam ne war na koo matal ndax bu mat sëriñ sëriñ bi nga xam ne mat na sëriñ mooy ki nga xam ne jaar na ci yoon wi ba yoon wi jeex mu àgg ci kër gi nga xam ne sëriñ gën te dundam des mu ne ci àdduna mooy ki nga xam ne àgg na ci jeex ci boromam sàkk ba suñ borom dellu ko may génne nit dundaat bu ñu tuddee al wujudu mawhubil haqqani mu dellu am geneen am boo xam ne bokkul ak am ji mu amoon am googee mu am dafa mel ne koo xam ne ki bu yàlla doon am doom mooy doomam ndax wàllu bi àgg ci yàlla mooy xaritu yàlla boo xam ne jaxasoo naa yàlla ba daraam fekk di ko tudd dara yàlla mooy ñu seen tubaab wax ne zimaamul wara asri ladallahi fi yadi umaarum tuhu min malikin qaadabil hani bi nga xamee ne dem nga ba àgg sa borom ba seey ci moom ba jeex ba nekkatoo ci sabam bi mu tibb ci boppam tabaxaat la nga am al wujudu mawhu bil haqqani dellu di ku am amin woo xam ne te zahir day ñëw zahiru nit ñi ñërëb nit ñi lépp ci zahir te wuuteeg ñoom ci biir nga xam ne yaay ka suñu borom ne maay lan ne ba muy waxe di noppam ya muy déggee di tànkam ya muy doxe di loxoom ya muy jàppe waxtu woo xamee ne ñaan na ma ma may ko waxtu woo xamee ne jéggul na ma ma jéggal ko waxtu woo xamee ne giñ na ci man ma dëggal la mu giñ foofu nga xam ne àgg na ci martaba boobu mooy ci ne suñu boroom may na ko alquran sànnaka ko doon loo na ko ko ba mu di cëram mooy ki nga xam ne kaaba gi daf koy ziyaare mooy ki nga xam ne nee na sama borom bëgg na ma ba ma gënal ko ñëpp mu bëgg loo ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ma gënal yonent bi ñëpp mu bëgg loo ma yonent bi des ñëpp ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo ma wàllu yi yëpp ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo ma malaayika yi ba ma gënal leen ñëpp suñu borom jox ma mbooleem xeeti xam-xam yi am njëriñ yëpp boole ma ci ahlu badrin def ma may dëkkaale suñu borom tabaraka wa taala di dëkkaale yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel ci moom ne Aboubacar ak Omar ña nekk ci tànkam mooy bi nga xam ne dafa àgg ci di xool lawxul mahfuus gis tur yi suñu borom bind ci texe di gis tur yi mu bind ci texe bu taalibeem bu mu nangul nekkee ca ñu bind ci texe bi mu am sañ-sañu tàllal loxoom far ko ci coobareel yàlla bind ko ca tur yi way texe ñe te mu neex suñu borom tabaraka wa taala boo doxee ba dajee moom ci kaw yoon suñu borom dem sa xalim ak bàkkaar dootu la bindal bàkkaar ci bind mukk mooy ci doon sallallahu taala alayhi wa sallam ci melaw ne woon waxtu woo xamee ne toog ngeen ci man ni ngeen di mel bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen ci saafoonteeg malaayika yi ci mbeddi Madina ci mun a war a. mu mooy ki nga xam ne su mboom daf koy defal mooy bu mu nooyi mu di daraja joo xam ne fu mënul awliyaa yi bu ñu doon dund fukki junni ak di yéeg ci seen borom duñ ca àgg mukk ci li muy li muy yéeg ci yàlla rek ci genn noo ak di morom ak dellu si lu may boobu ko suñu borom bi may jëpp lu tax mu waru mukk day xam kattanu suñu borom gi ak sañ-sañam bi ak man-manam bi xam ne lu ko soob def moom bi mu moom mbir mi te kenn fekk ko ci te kenn du ko ci fekk mukk te kenn amul sañ-sañ ci wetam lu nekk lu doom aadama am moo ko ko may mu di koo xam ne muy suñu borom tabaraka wa taala du dañ xëy jëm ñi nga xam ne ñoom la gën a tànn di leen yaatal ci boppam di leen bërgël ñuy dem ba àgg koo xam ne danañ leen taxaw leen fii taxaw leen fii ñu gën a xëj suñu borom suñu borom dana leen ci àggale nee ñu ñu wax alayhi salaatu wasalaam ni ko alquran waxe dem na ba waxante suñu borom ne ko da nga ne ma woon danaa la musal yaag sa ñeñ te kan aan mi sama doom ji ci sama ñeñ la te mu ngi lakk suñu borom jaggi ko xamal ko ne ko sañ-sañ man dong ko am lu ma soob ma di ko def doomu aadama amu ci coppant na nga wattandiku tiital bi ñuy tiital ci dugg ci loo xam ne yoonam ñëw ci sañ-sañ suñu borom ak biiri xam-xamam
لو آمنت أبطل mooy Moussa alayhi salaatu wasalaam bu ko suñu borom toogee moom junni jotaay yoo xam ne bu nekk jàng na ko fa nangami junni xam-xam te Moussa alayhi salaatu wasalaam di laaj suñu borom ndax am na keneen ku meneen ne man ci xam-xam te mu di ko wax ne آمنت أبطل boo bëggee yokk beneen xam-xam maa ngi lay tegtal sama jaam bu nekk mu ma albaare ni mu di Seydina Zul Qarnayni moomu leen Moussa alayhi salaatu wasalaam dem na ba lu ko suñu borom may
آمنت أبطل lu mu xalaat la ca gannaaw duñ ko may ñu may ko loola ba may ko la ca gannaawam mu dem ba ne jëmmi suñu borom tabaraka wa taala ji rek a ko doy mu laaj ko ne na ko gis suñu borom jàjji ko foofu ba mu xëm ba doj wa mokk ba def fëndax tak diggante asamaan ak suuf mu dellu sàbbaal suñu borom xam ne suñu borom tabaraka wa taala loo xej xej am na fu mu lay yemale noonu tax nga xam ne azza wa jalla loo gën a xej ci moom loo gën a xam gën koo ragal sa fit gën a daladi ndax màgg gi mu màgg ak kàttan gi mu am ak sañ-sañ ja nga xam ne dara rëyul ci moom xeebul dara yéemul dara xam gi ngay xam loolu tax na nga mel ne suñu tayle te Abdul Qadir Jeylaani nee na suñu borom jox na ma ñeent fukki kóolute yoo xam ne bu ci nekk xamal na ma ne ma dara lu jëm ci lu ñuy pexe wala luy lore muy adduna muy alaxara muy diggante bi barsax muy génn ruu doo ko gis waaye taxul sama xel dal xam gi mu xam yàlla moo tax sallallahu taala alayhi wa sallam yowmu badrin keroog badar ba mu nekkee ca arish ba te tàllal suñu borom ay loxoom di ko xamal ne kuréelu jullit bii tey bu ñu alkoo maanaam bu ñu dee ci xara bi bu yéefar yi dàqee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf tàllal loxo yi di ñaan boromam ba lambaay gi mu lambaaye woon rot Abubakar Siddiq yëkkati lambaay ga teg ko ci koy mbëggam ne ko doy na sa borom nangu na li ngay ñaan Abubakar day xam na yàlla lool xam na ne suñu borom nangu na ñaan gi ko yonent bi ñaan waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko gën a xam suñu borom gën gi mu ko xam gën a xam yàlla moo tax mu gën ko tiit ba xolam dem ak li ñu nangu nangu ñaan gi xam yàlla du metti gi moo ko waral loolu la ci Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu di wax ne daj li ma daj ci ñett jaam bu mën na ma fekkati ma bàyyi ko boromam lu ko ca soob jëfe moo tax muy wax ne am na taal yooyu ku ko fay def ca sidna Abu Bakr Siddiq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom jox na ko ngëneel yoo xam ne ku dul yonent amu ko te jant bi mësula fenk ba tiim ku gën Abu Bakar gannaaw yonent yi waaye teewul ñu fekk ko ndax xam gi mu xam yàlla ak ragal gi mu ko ragal benn bis mu téye ci làmmiñam di ko xëcc ñu ne ko lii lan la mu ne daf maa rotu ca rotuwaay ya dafa masat def fu mu toll mu ngi tiit jàq xol bi tàngaay muy tàng ak biir dënn bi tax na resta muy restu bopp muy mel na dañ koo wàjj ba suy wax xetuk rest wu ñu wàjj di xeeñ moom Abu Bakr Siddiq ak foofu mu toll yépp loolu moo tax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ak fi mu toll woon ci boromam ak li ko boromam may lépp mu ci la am jàmm fu mu toll du nopp lu guddi du nopp lu bëccëg liggéey rek am yërmande yàlla am yërmande yonent bi am seen ngërëm ba jàmm bu ko neex mu ramm la képp ku mu nangu sa njébbal nga mucc àddina ak alaxira teewul ci kanamu boroomam mu mel ne ku amul dara ndax xir ma ne woon murid bi ci charte yi waxoon naa cofeel taw cofeel bu mu am ci sëriñam ba nit yi nit yi nga xam ne doomu aadama bi sëriñ bi nekk doomu aadama gisatu ko bu ko xoolee du gisati lu dul yàlla du gis ci moom leneen mu di tëraw dëgg boo xam ne lu muy wax ak li muy def ak li muy yéene dafa dëgg ci moom dëgg boo xam ne jeexal na xolam tàkk ba dara defi ca nga xam ne amul dara ci adduna bu ko nga xam ne woon bëtiku mel na Seydina Bilaal radiyallahu anhu ak Seydina Ammar ibnu Yaasir ak Sumayya ak Yaasir ci boppam mel na Musab ibnu Umayr gaañu ñi nga xam ne tàngaayu Makka nga xam ne doj yi tàngaay yi ñu tàng mel na taal bu ñu taal ba mu sànq dañ leen ci daan futti ba ñu set ñu tëral leen ci ab doj yoo xam ne day peese ay téeméeri kilo di leen ko teg di leen jàpp seeni tànk di xëcc di leen diri di leen naq ci ndox loolu lépp teewul ñu gën a dollee gëm rek moo tax dañ tubaab bi nga xamee ne ci njëlbeenam génn bi ñu daan génn daal bi ak dóor yi kër yi ñu daan lakk ak fii yëpp metti na daf leen daan jox naka jekk misaalam gaa ñooñu la di leen wan ne ñooñu ñooy seeni baay ci lislaam kon da ngeen a war a mel na ñoom la ñu daan muñ da ngeen ko war a muñ ndax kenn ci ñoom daan fab ak siis ci boppam di ko siyee di ko siyee di ko siyee ba xar bopp bi ba mu dee waaye du tax la mu nekkoon mu génn ca loolu moo di yàqin yàqin boobu nag waxtu ca jaam àggee suñ boroom day dindi metti ci xolam ba du ñu ko def dara ba mu nekk ci xolam ba ñu yëg ko mooy li nga xamee ne dem na ba ragale suñ kenn ku dul yàlla yonent bi nee na suñu boroom duñ fab dara xiir ci kawam suñ boroom nag gannaaw ku sell la lu sell la bëgg yonent bi di ku sell lu sell la bëgg dañ tubaa di ku sell di koo xam ne fii ku bëgg mu sell la bokk na ci rafetu teggiinu taalibe bu melowoo melowoo rafet ndax askanoo ko ba noppi amee melow leneen ñàkkee ko teggin la te day doon lor ci ci jëfe noonu dafa demee ne ku jóg kon li ñu amoon ci rafet def ko ay garaatam di gën a màgg jëm ci bërëb bañ ko gën a fonke ñu kilifa bu tedd bu mag ay nit topp ko soli sagar tilim lool melo melo wu ñaaw noonu la mel ñàkk teggin googu noonu la mel ci murit bi nga xam ne dafa tuddoo sëriñ bi ba noppi te yoonam ci dara lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex dem lu ko neex mel noonu la demee ndax wóor na ne moom li charte bi moo di gannaaw mat nan bu doon li ci def bu ngi aju ci taalibe bi waxtu woo xam ne ne mel na war a mel ba ñu nangu ak taalibeem sëñ bi mu ngi mel ne géej gi lu du xëpp ci loola feey bu feey ndax kaamil la kaamil bi mu doon moo tax biiram rafet bitim rafet lépp lu ñu xamee ci lislaam wala lu ñu fonk boo ñëwee mu ëppale la ko dàq la ko boole baatil bi nga xam ne doo ko ci fekk mukk loolu taxoon ñu daan digal taalibe yi ci liggéey bi ñu ko daan liggéeyal toroxlu bi ñu daan toroxlu bàyyi àddina bi ñu daan bàyyi àddina farlu bi ñu daan farlu ëpp ñu jiital xam lu farata yi te di ko jëfe mu daan leen di xamal ne moom ci boppam warlu na dana bind lépp lu jullit war a xam war koo jëfe danañ ko bindal ci téere yi ci biir xasaay bi jox leen ko ngeen jàng ko di ko jëfe dara lu lu sellul nag jegewu ko dara lu sellul bokkul ci moom dara lu sellul itam dig moomeelam ndax nee na suñ borom def na bi nga xam ne ne seytaane xool na sama digg ak moom jàpp bi mu jàpp ba wee yàq te mënut cee yàq dara mu ne na ko jéem a ñaawal muy def fépp fu mu gis jëmm joo xam ne néewul te li yàlla ak yonent bi santaane mu ne la na nga tuddoo kee ndax ñu rafet njort ci yow bu ko defee nga doon la nga doon ba noppi te ne murit laa wala Baay Faal laa loolu lépp bokk ci pexey seytaan yoo xam ne lu ma ko daw la ndax sëñ Tuubaa li mu daan digle mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan digle mooy li yàlla digle dafa boole zahir ak baatin zahir bi gën a rafet ci zahir ak baatin bi gën a rafet ci baatin yi nee na suñu borom day suma wëllëreeg moom àgg na koo xam ne ay na nit du ma tuddoo mu di ko lakk waaye bu ko soobee mu def ko suuf jëri ko ndax àjjana sans borom bi ku ko jaamul doo ca dugg waaw ah arab yi tolgoon yi dañ ne alkaamilu man laa yukta unuuru maarifatihi noora wara ihi góor gi mat góor mat góoru yàlla ba àgg ca dayo ba mooy koo xam ne sañ-sañ bu mun mën a am lu mu xam-xam yàlla loolu bu mu wóoru mucc bu mu mucc moom ñi mu àndal du tax mu mu sàggane benn charte wala benn ponk ci ponk shariat borom ma ne saxal ba am sàmm bu mu sàmm dara du te manque dara du te yées day mat na mu doon ndax gis nañu ne ci gaa yi yàlla yi bari na ci ñoo xam ne bi ñu àggee ba naan ba mandi dañoo tàggat seen sago ba wax lu tax ñu rey leen loolu ñu tuddee ko mandité li ñu wax ne góor yàlla yi ñeent lañu ak saalikul majjuub saalikul mujarrad wal majjuubul mujarrad wal majjuubu saalik al majjuubu saalik nag mooy sëriñ sëriñ si mooy ki nga xam ne day seey ci boromam ba jeex tàkk daa ñu nekk li ne sëriñ bi mas naa toog ci njaareem bii ci këram benn bis di xaddis di waare di delloo nit ñi ci seen borom li nga xam ne noonu la ko daan def faw rek fu mu toll am benn taalib boo xam ne dem na ba dëndam rëcc mu ne um wallaahi mbàkke yàlla nga ne yàlla nga na naar bu ko nekkoon bu bari xam-xam moom it ba suukar sax teey ba def benn dërëm dong ca taatoo mu yëngal ko ne mos leen ko ñu commencé mu ne ndax mën nañoo teqale ndox mi ak suukar si mu ne ko mbàkke loolu kenn mënatu ko ndax ndox mi suukar la suukar si ndox la mu ne kooku ñu ma doon tuddee léegi noonu loolu demee kon wane na ne jaxasoo naag boroomam ba àgg ci yàlla di bëtam yi muy gisee di làmmiñam yi muy wax di noppam yi muy déggee di tànkam yi muy doxe di loxam yi muy jàppee loolu moo tax mu ne suñu borom fab na ak dundam ak sama dund jaxase ko muy lenn mu ne bamma xayaati li xayaati llaahi allahu daaxilal jinaan allahi ku ñuy wax xallaaj mu alxasib ibnu mansour ak ku ñuy wax abdul xaq ibnu sabain ak ku ñuy wax ibnu qasi muy abdul karim ñoom ñëpp dañ leen a rey ndax mandite mu ñu mandi woon ba wax loo xam ne borom xam-xam yi ci yi mënuñu koo dégg ñu seet ba ne yoon rey na leen ñu rey leen loolu le am bi mu amoon fekk na li nekk diggante sharia ak xaqiqa dafay aw dig boo xam ne ba tey sëriñ si yëkkati duñ ko mënuñu ko yëkkati te wàllu yi fa lañ koy bàyyi ndax warmaal sharia warmaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam warmaal suñu borom tabaraka wa taala ndaxte xalaat ñi ko reyoon ba nga xamee ne way dëggu nañu te yàlla dong nga tax ak sàmm sharia te dara ci ciru bakkan dugg te yàlla dana leen yool su wàllu yu mag lañ rey di ak xallaaj naka noonu ñu rey ibnu samin lu tax aar ji muy aar sharia dafa mosoon a am ci lënd mu benn wàllu boo xam ne dafa dëkk benn kóore wàllu yu bi du ko am sañ-sañ lu mu wax rek borom xam-xam bi weddi ko bu yónnee ndaw ñu ñeene sëriñ bi nee na nangam nangam alim ba dal di yónni moom it ndaw bu jaar ci tànkam lu mu wax rek mu ne bu leen fas loolu mu wax day bu leen ko jàpp du noonu de nangam ak nangam la ba wàllu yu ba xat fa mu ne dina xat ca dëkk ba mu génn di dem mu demee ba ci yoon am ci taal yi ku ne ko yow de yaa ngi sonal sa bopp ndax yow loo ne yàlla def ko mu def ko mun loo ñaan yàlla ci mu dee wala mu dëkk génn dëkk bi waaye yow ngay su fi yéenee dem rek te xamuloo foo jëm mu ne bu ma ko ñaanalee suñu borom du ko nangu ndax bi ma daataan jóg yër naa xorom ba xam ne dara ci ngistal nekku ci dara ci añaan nekku ci dara ci rëy nekku ci dara ci jiingat néew ci day sàmm cere arrêt kon bu ma ko ñaanalee suñu borom du ko nangu loolu ma tax a jóg xam ne kon ñooñu nga xam ne dañu sàmm cere am moo leen tax a jóg te yokkuñu ca dara wàññiwuñu ca dara tuyaaba lañu am ci ñooñu ñu rey waaye ñooñu ñu rey xarit yàlla lañu ñoo xam ne la ñu wax yàlla jàppalu leen ca dara te ëllëg ci biir bu seeni daraja feeñee ñooñu daañu teg seeni bopp dañoo jeex ci yàlla ba li nga xam moom la Abu Nuwas waxoon ñu muy seen xaal seen diggante seen borom muy raqal bujaaj wa raqatil xamru wa tashabaha fa tashakala lamru ka annama xamrun wala qadaxun ka annama qadaxun wala xamru li nga xam ne da ngay teg butéel def ci ak naan boo xoolee butéel bi jëmm ji butéel bi rek ngay gis naan bi dafa sell ba du feeñ boo xoolee
moom rek ngay gis ndax butéel bi itam dafa sell moom it dafa leer ba nga xam ne du feeñ kon dafa mel ne butéelu kese fi nekk bu dara nekkul wala naanu kese fi nekk bu taxaw te butéel ëmb ko mu ne noonu la demee ak suñu borom tabaraka wa taala yàlla kese nga fay gis ba ci leneen suñu borom nag dafa tànn ay jaam yoo xam ne dafa leen a jox tasarruf maanaam soppandiku ci jaam ñi ñu sañ a jëf lu leen soob na mu leen neexe te dara du leen ca fekk te la ñuy jëf itam ak jaamu yàlla lay doon ci ñoom ñooñu nag am na ñuy raaxaloo ak ñoom te di nit ñoo xam ne du ñu nit yàlla loola tax ñu ne wax bal karaamati li kulli faasati dàqban wala wasiya kulla xaarati képp koo xam ne ragalul yàlla mën na def kéemtaan waaye kéemtaan bi mu def bu ko tuddee mukk karaama karaama ku yàlla gërëm la ba abal ko kàttan boo xam ne du ko nangu fii du ko nangu ëllëg ba tax ñu ne boo ne diw wàllu yi la saxal nga ne diw moomu xarit suñu borom la boo xam ne lu ko soog def mujj bu rafet saxalal nañ ko ko te du daj mukk te dara mënu koo dindi te itam ku ànd ak moom mu texeel la boo ko waxee atte nga xëy ndax wàllu yi day di suñu borom nëbb ñu sëñ Tuubaa waxee ne. xam suñu borom tabaraka wa taala mu gën a yomb xam wàllu yu ndax wàllu yu dafa am mbubb yu nit ñëpp amee day xiif di mar di lot di fàtte di ñàkk di wopp di wér di juum di nax lépp luñ ci def daf koy def loolu mooy suhudul mu maasala fi ñu ne juróom-ñaari junni kiiraay yi ñu koy yiiree bu fekkoonte ne yëpp dundee ko ba mu def benn boobu rek du tee kenn du ko xam ndax ni nga ko gisee rek mu mele ko du wuteeg kaw melo dara ba da ngay jàpp ne moo ko yooyam ci lépp fekk mbir yi nag nekkul foofu ca biir la loolu mooy fekk ci mborom daf koo duy ba mu fees ak leer ak ngërëm ak mbëggeel ak yërmande képp koo xam nag mborom fopp na la ba nga wutu ko ci kaw suuf dootoo ndig boo àndeeg nit ñi wute nga ak nit ñi. looloo tax boo xamee ne ak nga ci yenn martaba yi nga xam ne mooy dayo ba képp koo xam ne sopp la rek. suñu borom dana faral turam ci diwaan wu ne te xeñal loolu tax dañ tubaab ni saqa man lam yahu ni qad kutiba wa kawni al abdal xadima wajaba képp koo xam ne soppuloo ma suñu borom bind ne ak texee di ci àlluwa ja nga xam ne lu mu ci bind dootu ko far mukk loolu tax mu ne laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin isqaahu mawlaahu moo tax mu ne jiitu gi mu jiitu moom bu ump kenn ku suñu borom lu dul ku suñu borom texee di rek loo tax mu ne tawaafu kulli man alayya ankara indal ilaahi wa nabi lañu ci kara jëmm ji demee noonu suñu borom dafay def pàcc suuf yi dañ koy bëgg waxtu woo xam ne mu ngi jógee ci ñoom du jógee ci béréb jëm ci béréb pàcc bii mu jógee dañ koy namm pàcc yi mu jëm dañuy sàbbaa ngir yàkkamti ko ngir pexe boo xam ne bii suñu borom daf leen koo defal ci ñoom muy seede martaba bu ñu am boo xam ne martaba ngir seede ko ëllëg yow mal xiyaam ca kanamu yàlla muy martaba bu kawe loolu moo tax béréb yi mu daan jaamoo suñu borom ba yàgg fa ci bi mu nekkee ci géej gi yëpp béréb bu mu fiy jógee béréb booba suuf sa day jooy ngir teqli ko bi muy teqli ko moom loolu mu doon ne ko ci yonente bi sallallahu taala wa sallam bi nga xamee ne dañuy soog a tabax jàkkay madina ji te tabax bi liñ ko minbar mu daan wéeru ci ëkk ëkk gëm daan taxaw di xutba bi nga xamee ne tabaxaat nañu jàkka ji ba defal ko minbar mu toxoo ci ëkk ga yëg ci kaw minbar ba ëkk ga dal di binni di yëkkat di jooy ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci kaw minbar ba ñëw dar ko tax ko ci dënnam ëkk di yëkkat di yëkkat mel na xale boobu jooy bay nopp ba sot mu ne ko yàlla dal di ne turu yàlla yu ma daan tudd ci kawam moo tax muy jooy li ma ko ko xañ waa waa jooju nga xam ne suñu borom daf ko àggale ci martaba boobu nga xam ne wund sax balay lekk janax tàggu ko noonu la ko pàcc suuf yëpp di nammee noonu la ko bis yi di njëkkantee di ko namm bis ba mu ya mu féete bis ya mu dund bis ya mu dundul dañ leen di ñee ndax bis yi dañuy fasanteeg moom wëllëre guddi yi dañuy fa fasanteeg moom wëllëre ni ki pàcc suuf yi di barkeel moom di fasat moom wëllëre loolu moo taxoon suuf di jooy waxtu woo xamee ne teqal koo naat suuf sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon bis benn sàmm amoon gëleemam gëleem ci jékki-jékki rek mel na dañ ko saxal kaani nangootul nit jege ko pour ñu jege rek mu jëm la mat parce que li yéene rey bi ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñu ne ko bu ko jege dafa soxor mu waaxu ba àgg teg ko loxoom gëleem bi dal di yës dal tàmbali di fóon tànk yi di jooy mu ne li nekk diggante asamaan ak suuf lépp lu nekk di def asamaan suuf rek xam na ne suñu borom mooma yónni ba mu def moykat yi doomu aadama ak moykat yi jinne yi ñoom rek ko umpale ne yàlla yoon mooma yónni nga xam ne wóolu bi ma waxoon mu di ngëm bu sax bu matee ci doomu aadama lépp loo xam ne lii yonent wax na ko wala kenn ci ku mënul awliya yi suñu borom daf koy dugal ci sa xol benn bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay waxtaan bene dafa amoon wenn nag boo xam ne ci jamono yi yonent biir biir banu Israël waaja dafa sëfoon nag wa ba mu yàgg nag wa sonn nag wa daal di wax ne ko man de seen binduma ngir lii saaba yi daal ne yaa subhanallah baqaratun takallamat nag muy wax subhanallah mu daal ne ana amantu bi dalika ana wa abubakar wa umar man de gëm naa ko man ak abubakar ak umar booba dafa wane ne abubakar ak umar àgg nañ ci martaba siddiq parce que siddiq dañoo amee bëti xol yoo xam ne li nit ñi gëm ci kaw falam su dañuy jàlloo moom li nga xam ne ne Abubakar ak Umar ak nañ ci marché bu boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di xam ne li mu wax ñoom gëm nañ ko ndax dañoo am bëti xol ndax yàlla di gën a bari ci jamono yi dana di indi ay kéemtaan kéemtaan woowu benn wala ñu def ko muy karaama wala yonent def ko mu di mu'jiza waxtu bu ko defee muy mu'jiza li gën a bari ci jamono yi day ànd ak mu laa basaat ci jamono li nga xam ne mooy aada ñu di ko gis faww rek loolu mooy tax ñii gëm ñii weddi sallallahu alayhi wa sallam bu mu duggee ca xunt ma te garab ga dal di gaawantu sax ci buntu xunt bi ngir nëbb ko jargoñ gi dal di gaawantu lënd ko ba tax ñu dal di gaawantu tàgg fi nen fi garab gu sax ci kaw suuf moom la ñu dëkkee gis bu nekk ci gëmul daf naan garab la rek gu sax lënd itam day lënd rek ci kaw garab di lënd ci kaw ban di lënd ci néeg dañu naan du kéemaan yàgg nañ koo gis te tax mu tàgg nan fu ne lañ koy gis waaye lii kéemtaan gi moo di si mu duggee rek loolu yi daal di am ci saa si mooy kéemtaan ki ko gis fekkiwul woon bu yàlla naree mu am mucc day def ngëm ci xolam bu naree mu bañ a mucc mu daal di ne lii daal gisuma ci benn kéemaan garab bu sax jargoñ bu lënd da tax mu nen bu nañu gis ko naka noonu benn bis ñu nekk ci xare te boo bërëb bu tàng bis bu tàng ba doy waar ñu mar saaba yi ngi mar dañ ñuy dox jëm ci xare ba seen ndox jeex na tàngaay yu metti na ñu ne taw ñu tawat ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñaan boroomam aw nii dal di ñëw tiim leen ci saasi sottee sottee sotti bañ tooy duy seen ndab yi ñu amoon mbuus yëpp fees ak ndox ngelaw li upp leen mu féex ba mu ko defee daa ñi nga xam ne suñu borom leeral na seen xol dal di geesu munaafiqoon yi ñu ci naafeq di ne leen ah lu ngeen waxati ñu ne ah miir wu romb rek ah miir yi day romb rek dal di taw fii loolu moom bu ngeen gis ko noonu kon suñu borom tabaraka wa taala dafa am ay secret mbiram du ko weer xam ko bëgg a xam rek a koy xam kenn daan dana ñëw fii ñi ko war a gëm rek koy gëm lu mu fës fës fës dana am ñoo xam ne dañuy raisonné rek ne nangam la war a demee rek ñu tëdd loolu moo tax alquran li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin loolu day daal di leeral ñi alku ñu daal di gis lu leen alak rek ñi mucc ñi gis li leen mucc tax a mucc muy lu leer yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa mas a nettali ne dafa amoon loolu tax nit ki ko def moo ko nettali moo ñëw ci jotaay bi yonente bi salatu dama nekk nettali ko nee na dafa doon sàmm benn tilli ñëw jàpp benn gàtt ba di ko bëgg a rey bu ñëw teqali gàtt ba tilli bi yéeg ba ci kaw tund wa waaye ci suñu borom may ko mu dégg ci ay noppam tilli bi naan ko wërsëg bi ma yàlla wërsëgal ma dem ba téye ko xiif war koo jëriñoo nga ñëw nangu ko ci man waa ji daal di sàbbaal suñu borom ne la ilaha illallah man de jombi naa ci li buy wax li de kéemaan la mu ne ko li ko gën a kéemaane mooy yow bi nga doon ak li nga dégg lépp ak yonent feeñ ci diggante ñaari xarra yi di woote indi tegtal dëgg yëpp ba leer ñëpp nga bañ koo dëggal looloo gën a kéemaane sama wax ji mu ñëwee nekk loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam daal di koy déggal saxaaba yi wan leen ne leen nubuwaam googu suñu borom xamal na ko képp ku war a mucc képp ku warul a mucc suñu borom lëntal na la ko. wàllu yi nag dana def léeg-léeg seen daan boo xam ne ba tey day fekk muy béréb bu mu tànn defe ko fa ndax bu dee loo xam ne lii warul a fekk jamono day fekk ay nit ñu woo xel xam ne bu ñu ko nettalee kenn du ko gëm mu war leen wala woon ko ñenn nit ñoo xam ne nit ñi bàyyi nañ leen wala ñenn nit ñoo xam ne fa ñu nekk jubóowu ñoom ña fa ne bu ñu ko waxee duñ ko gëm loolu lépp ci sutura bi muy suturaat ay jaamam rek ngir lu waru la feeñ du feeñ lu waru la nëbbu du nëbbu mooy li juróom na arab yi nee na mas na gis benn su la jox boo xam ne dafa doon waranteeg moom ba ne ko yéen da ngeen a amul dégg ndax alquran li muy wax lépp seen xere ci àggul waaye amul dara loo ci xam ne lii dafa mel ne moojiza yi ngeen di woote ndax Ibrahima moomu ngeen di wax dañoo taaloon safara sànni ko ca te lëkkul du safara safara yi jubluwuñ ci safara ñu ngi ci jublu rek merum Namrud mer moomu meroon te meram di lu aay di lu gaaw a rey nit lu gaaw a alke moom rek lañ ci jublu waaye jubluwuñ ne safara la waaye safara ci boppam moom. xaqiqa la boo xam ne réalité la boo xam ne xanaa xamuloo ne safara dañ koy digal rek safara du lakke yàlla ci boppam mooy lakke moo xam nag lakke boobu roos ko ci safara wax bu ko neexee mu rocc ko te bu ko roccee safara du lakke mu ne ko loolu mënu la dugg bopp nee na sax booba jamonoy sedd la ñu ngi jaaru furna bu yàgg mais mu ne ko waaw man bu ma taxawee taxawaayu Ibrahima alayhi salaam du caa ji kat may def karaama dama lay misaal rek léegi safara wi taxaw taxawaayu safaraw nangu ba ma téye ko ci sama loxo wala ma jox la ko nga téye ci sa loxo wala nga ëpp ko ci nguub bi te nekkuloo ndax da nga gëm kon la wan mu ne ko waaw waaye loolu mënu la am ñaara bi daal di tax li détaal ba daal di yëkkati fourneau bi ne ko yàngal sa mu yàngal ko mu fàtti ko te ne ko wal ba di ko mu fat loxoom di jeex xal yi di jeex di jeex ba mu ñàkk mu daal ne ko sotti ko ci sama mbubb man mu sotti ko ci mbubbam mu dal ko daal di koy sottiwaat ci furna ba daal ne ko laalaat su jegelal sa loxo mu jegeel loxo rek mu lakk ko mu ne ko noonu la safaru Ibrahima oo meloon mooy yaa neen kuuni bardan wa salaamun ala Ibrahima ba suñu borom ne kuuni bardan la safara wa seddoon kuuni bardan jooju sirro booba laaroot ci def ko ci saf furna bi moo tax mu mel nii philosophe dal di tuub ndax xel rek la amee woon lu xel joxe rek lay nangu lu xel joxe wut ko nangu waaye ba mu demee ba xam ne am na leneen lu dul xel te gannaaw xel leneen la fa te mooy ngëm te mooy kàttanu yàlla ci la dal di tuubee ndax ibnu ibnu arab yi bi mu ko daataan def seet na ba xam ne ci suñu borom bind na ko ca way fexe ña moo tax mu dal di sañ a def karaama boobu rek waaye li nga xamee ne màgg ñu ci matériel noonu la jigee dayoom ba nit ñi yóbbu ko fu àggul ba ñu dox ba mu dox seen diggal yàlla ba nit ñi amatuñu bëgg-bëgg amatuñu xalaat lu dul màgg rek matériel rek booba la seen ngëm wàññi ko booba la suñu borom rocc ci ñoom seen rëb ngëm ba si diix yeekul ëpp naa jafe see àgg lu dul nit koo xam ne nekk na ci bërëb boo xam ne maanaam noonu matière noonu matériel noté xoli doomu aadama yi àgg ko wala ngay gis suñu borom yërëm ba matériel noté wul noonu sa xol yaa koy mën a àgg ndax nit fi mu nekk gannaaw léegi matériel boobu not na nag boo xam ne delloo si na xel nit ñi ci li teew rek luy jëriñ njëriñ lu teew rek la ñuy daw jëm luy jëriñ njëriñal ëllëg dootuñu ko xalaat seen xel bi ca dem wala bu ñu ko xalaatee dootuñu ci am xër boo xam ne dana leen jaral ñàkk dara tey loolu yóbbu leen ci fu ñu toll moo nekk seen xel waxtu wu ñuy yewwoo moom la ñuy yewwaale waxtu wu ñuy nelaw moom la ñuy nelawaale bu ñu fàttaliku mukk ne doomu aadama kat ca la mu dee rek lañ koy fange bis ba te ca la mu dundee rek lay dee nit li sax ci xolam di bëgg-bëggam du du taxoo moom waxtu wuy dee ca la ko dee di fekk li gën a bari ci jamono yi te na mu dee na lay dekkee bu dee ci ñëwee te mel woowale ca la texe nekk ca la texe di nekk loolu tax nit jullit war a am lu soqi ko ci lislaam lu mu bëgg bëgg goo xam ne moo ko gën a matériel muy sëriñ bi muy alquran muy yàlla ci boppam muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam na nag ci xolam nag boo xam ne dana tax matériel dootu ko yóbbu ndax xol ndab rek la ndab li nag ni nga xamee ne safara ak ndox mënu la daje ci leen ndab noonu la bëgg leneen bëgg bu mat ak bëgg yàlla bëgg bu mat mënu la daje ci benn xol alal ak adduna ak daraja mooy mbokk bu roo roo daf ko bëgg dafa neex ci moom waaye leer yàlla it xol mooy place am fa lay placé waxtu wu ñëwee amu fa place fekk leneen placé dafa fay wacc dem waxtu wu ñëwee fekk mu féex te la koy jox place mooy turu yàlla wuñ saxoo ak taxaw waayu yàlla taxaw waayu yàlla li ma waxoon sànq ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Hamza la waxee dinaa ko ba tey ci conférence yu bari Seydina Hanzala ci saaba yi la woon dafa daje gis naa Abubakar ca marché ba ne naa sax Hanzala man Hanzala lii leen naa seet laa Abubakar ne ko lu tax nga ne naa seet nga mu ne ko damay def bu ma dajee bu ma toogee fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mel ne maa ngi jàndoog ajjana jàndoog safara jàndoog arasi kursi yu waxtu ma fi jógee ba dem ca marché ba wala ba dem ca kër ga ba jaxasoog xale yi ak jigéen ñi jaay ak jënd ma dellu fa ma nee woon Abubakar téye ci mbubbam bañ dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog mu ne ko waxal na nga waxoon ba Hanzala nettalee loolu le yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ni ngeen di mel bu ngeen toogee ci man bu ngeen ko mënoon a wéyee malaayika yi dañuy saafoonteeg yéen moo nekk ci saxaba yi bari na ci ñoo xam ne góorgóorlu nañ ba meloo woowu takkoog ñoom Seydina Imran ibn Husayn dafa daan saafoonteeg malaayika yi di wax ak ñoom di leen laaj lu ko jaaxal bi nga xamee ne dem na bis ba su borom natt ko mu am taat bu métti boo xam ne du wér mukk faral ko guddeeg bëccëg mu saafara ko ba mu ko saafaraa te demoon na ba xam ne taab bi xéewalu yàlla la yàlla dafa gën a bëgg moom mu gën a dëddu adduna ndax métti li gën a jublu xolam ci yàlla mu daal di saafara taab ga gisatul malaayika yooyu mu daan saafoon teel ba mu demee dellu di jaamu yàlla di jooy di sonn di ñaq di xiif di mar di wéet di lot di sarxe di jàng alxuraan di def yi mën lépp ba su borom delloo ko melo woowale taab ga dellu siwaat fa mu newoon mu bàyyi ko bañ koo saafara googu yoon ba suñu borom ci ko boppam jox ko yërma dem mu wéy ci di jëfleen teeg malaayika yi mel woowu la naka noonu nga xam ne moom la saxaaba yi meloon ci toog li ñu daan toog ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàmbaaram naka noonu xutbul xaw wala waa ji ko jege wala fu mu yar ba nga àgg ca dayo ba boo toogee moom yaa ngi yéeg jëm ci yàlla kooku mooy cheikhul muraqi yi foo toog da nga fa jógee ñeent fukki fan kenn du la bindal bàkkaar xam ne boo ko jigee dana bàyyi ci sa xol loo xam ne da nga toog ab diir mu ne ci sa xol loolu moo lay tàggale ak seytaane fépp nit ki àggul foofu ba lay tàggale nit ki ak seytaane dana sonn kon mu ne matériel dafay dox diggante nit ki ak yàlla ndax xol mooy place bi dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon raaytu abdurahman ibn awf yadxulu jannata xabwan gis naa ci saxaaba yi ku ñu naan abdurahman ibn awf bokk na ci fukk ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgalee àjjana gis naa ko muy raam di dugg àjjana wala maa wu ni ñu ko tekkee nee ñu sayyidina abdurahman ibn awf dafa nekkoon ku bari alal bari lool alal ba mu doy waar alal nag ci xol la sax ngëm itam ci xol la sax mu doon gëmoon yàlla lool ba doy waar bokk ci saxaaba yu mag yi alal ji nag ak ngëm yàlla gi bëgg yàlla gi di xëccoo xol bi xam ngeen ne ñaari kàttan bu ñuy xëccoo dara kii xëcc jëme sent kii xëcc jëme sow kii ëpp doole mooy wat waaye bu fekkee ne tuuti la ko ëppee doole daf koy wat wat bu yéex boo xam ne day yéexee ne raam naka noonu la ngëm yàlla gi ëppee doole bànneexu alal bi ci xolu Abdurahman ibn Awf ba di ko xëcc waaye xëccaay ba mu koy xëcc jëmee àjjana dafa mel ne raam rek Seydina Abdurahman ibn Awf bañ ko nettalee loolu dafa dal di fa fekk benn bis tàkkusaan juróom gi nga xam ne dafa wëtti woon di jox ci fees mbedd di Madina yi ba doo am foo jaar foo jaar rek nga fes del ak xar ak bëy ak gëléem ak yooyu mu daal di def lépp ci yoonu yàlla booba la tàggoog melo woowu ne daal di mel ne kuy naaw dugg àjjana loolu moo tax nag sëriñ bi nga xam ne dafa mat sëriñ noo bu nekk bu noo duggee ngelaw li dugg ci xëtër boobu muy dellu si dana fi nemmi ko fukki yoon xol taalibe bu mu doon ak lu ñu bari bari ak fu ñu mën a nekk ci penku suuf ak ci kawu suuf dana ne moo loolu moo tax ñi nga xam ne noonu la Imam Ghazali waxee ne ak cheikhul murabbi ak cheikhul muraqi mu mel ne docteur docteur boo xamee ne fukki malade ñëw nañ ci moom te bokk benn feebar mu boole leen benn garab ñii daal yu wér ñii seen feebar dana nekk fa mu newoon ñii seen feebar wàññi ko te du wér ñii seen feebar yokku ñii dee mu ne lu tax war naa bàyyi xel ci seeni at ku ci bari dara ak ku néew dara ku amee tàngat ak ku amee sedd ku néew doole ak ku ñàkk ku am kàttan li nga xam ne noonu la war a seet naka noonu itam cheikhul murabbi bi noonu la war a bu ne jàkk xol nit ki war na xam jàngoro xolam lan la ndax rëy la mu dindee ko nañuy dindee rëy ci xol wala sàggan la wala bëgg adduna la wala bëgg daraja la wala bëgg lekk la wala tayyee la jaamu yàlla la wala lu mu doon mu xam garab ga koy dindi mu dindee ko ko kooku du sëriñ boo xam ne du médecin boo xam ne benn bitir dong la am moom lay bitir ñëpp loolu moo tax cheikhul murabbi di muallim di muraqi ay sartam xëy na daañu ko waxtaane waaye mu dellu ci li nga xam ne noonu la sëñ Touba wege sharia ndax wet gi mu wet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak wet gi mu wet boromam xam ne na ne bokk na ci farata yi nga xam ne moom la suñu borom teg doomu aadama topp sa ñaari waajur ñaari waajur lu tax ñu war leen a topp xàqale ci leen ameel ndax fi fi ñu jaar ak yow coono bi am ci yow te nee ngi bis penc ba ku seen sa ndey da ngay daw ku seen sa baay da ngay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa soxna daw ku seen sa doom daw ndax nekk bi ngeen nekkoon ci adduna xamuloo ndax ameel nga ko xàq ji mu la war a topp wala déet te bu bu boobaa ku nekk la nga am lu mu mën a toll xeet nga ko ba doo bëgg dara jóg sa te kon doo bëgg ku lay topp xàq kon waajur xaq ju diis la ko doom amee xaq ji tax na topp ndigalam taxawu ko dimbali ko di farata ñu ne xanaa bay ñu baax mu ne ndey bàyyi buñ doon ay faatiq buñ leen yéefar itam xaq jooju ameel nañu amee ameel nga leen ko kawar nga leen koo fay bu boo leen toppul bu yomal xëyaama nga leen ko fay mu ne waa ngay waxante ñoom wax ju lewet ju nooy te bu leen gëdd na nga ànd nekk ak ñoom ci yiw na nga leen di topp ci loo xam ne li yàlla terewu ko waaye bu leen topp mukk ci mooy yàlla lépp loo xam ne yàlla digal na la ko buñ la ne bu ko def na nga bañ waajur li ñu foor foor ci doom boo kàbbaree di julli bu la wooyee doo ko wuyu kenn rek la ko sori amay muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo kàbbaree di ci digg julli bu la wooyee nga toog ci liggéey te doo ci am bàkkaar yàlla maye na ko ko jullit bi war na fu mu toll di jéggalul ay waajuram ndax ki nga ameel xaq te mu dem yomal xiyaam mënatoo koo fay du dul di ko jéggalul boo ko jéggalulee jéggalu bu bari nag ba suñu borom sabab ci sa jéggalu ak njéggalam bu keroogee yaa ko mënoon a topp xaq waaye mënatu la topp wàccoo nga ak moom. jullit bu ne waa nga méngoog jullit ñi jiwoo ñoom di dem leen te ñoom amee leen yiw yëre leen yëre yéene sa bopp. war nga leen di laa biir ci lépp lu leen xamal te muy njëriñ ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn du gëm mu mukk dëgg dëgg gëm ba sa gëm mat telu li nga yéene sa bopp yéene nga ko sa mbokk jullit yëpp kon jox ak mbokk war na ak mbokk jullit itam doomu aadama muy jullit war na sàmm ab gisam bëtam bii ba du xool lu xaraam war na ci góorgóorlu lu mu mën war na ñoŋal làmmiñam wii ba wàññi jëw wàññi fen wàññi wax lu ko warul ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yomal xiyaam jëmm dana xalambaay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet te loolu la maanaam juróom-ñaar fukki at te loolu la dara waral lu ko ludul benn baat bu mu waxoon ci jotaay te jublu ci lu dul reere ñu muy waxal rek kon ñoŋal sa làmmiñ ci neen lu war ci wax ci ñaaw lu war naka noonu lépp loo xam ne lii ak neen la jullit bi war na di lekk lu lew di sol lu lew di dëkk fu lew di war lu lew jullit bi war na góorgóorlu ci jikko yu tedd yi nga xam ne moom lañ ko sant mu melowoo ko te bokk na ci ku la tooñ boo ko mënee jéggal nga jéggal ko ku la xañ nga di ko saxee may yow ku la jëriñul nga jëriñ ko képp ku la doxu nga dog ko nga bañ koo dogu yow nga jox ko digle lu baax tere lu bon suñu borom teg na ko ci ndox dum képp koo xam ne ci mën ngaa wax boo waxee ñu dégg ko bu fekkee ne mën nga koo wax ñu dégg ko nga wax ko boo xam ne ñeme woo koo wax ñu ngi ko sikk ci sa xol bu fekkee ne mën nga koo soppee sa loxo nag moo jiitu jëmm ji lépp lu muy jëf na sellal sellal mooy lan mooy ngir jëmm yàlla suñu borom tabaraka wa taala ndax rabbul izzati azza wa jalla du nangu jënn jëf yoo xam ne jëf nañ ko ngir leneen wala ñu boole ca leneen lu dul yàlla te nit ki ak sàggan bu mu mën a nekkee nga bàyyi mbiram ak yàlla te di ko ñaan te di ko yaakaar te di yaakaar mu jubal ko jéggal ko jaara ko yoonu jub may ko texe bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla ndax suñ borom xas na ñi naagu ci yërmande yàlla maanaam naagu na dootu yàlla dootu leen yërëm nit ki di nit la war nay xalaat fu mu toll ay yëgul war nay xalaat su xalaat ndax waxoon naa ne suy wow di génn ci jëm ay birajiko yoo xam ne gën a guddul yàlla ndax doomu aadama bi fu mu mas a jaar dañu ne arrêt dafa mel ne seetu jëf yi mas a jëf yëpp xam nga ne boo jàkkaarloo seet loo def rek da nga fay sa seet ba dafa mel ko bu tollee ci génn xuru nag dañuy indi arab jàkkaarloo mu jàlloo moom maanaam moom jëmmam lay jàlloon lu mu waxtaan def yëpp daanaa waxtaane ci conférence yi ne li muy njëkk a gis ci jamono yooyu muy ay jëfam jëfam yi dana meroo merowu ñaaw loo xam ne dugg safara ba dañ ko gisatee suñu gënal ndax xetam ak ragloom ak ñaawaayam jëfam yu rafet yi dana mel ci moom nekk du gën a àjjana waxtu woowu bu dee xalaat loolu di xalaat dem na muy nekkee ci bàmmeel ba na mu koy jógee te xamul kañ la bu fa jógee lu muy fekk dana muy jógee siraat benn téere yi wadde nañu peesee jëf yi ak ñi mu ameel àq ak ñi ko ameel àq taxawaayu bis penc ba juróomi téeméeri junni at yóoru nit ñi di xet nit ñi seen ñax laban leen te kees su ngorom dënnu lu jaam ñi rek bañ leen a àtte mu xalaat loolu lépp nee na xalaat sa ëllëg mooy caabi jaamu yàlla boo ko faralee xalaat rek xol mën a set te da nga fàttaliku ëllëg te jaamu yàlla bi ca xeet dara tudd yàlla bi ca xeet dara saxoo turu yàlla bokk na ci liy dimbali jaam bokk na ci liy dàq seytaane bokk na ci liy leeral xol bokk na ci liy yombal jaamu yàlla bokk na ci liy xeeb nit ci lu koy fexee nga fàttaliku sa moromi jaam yi nga xam ne dañu ne leen defaloo yàlla lenn lu ñu ko defalul te yàlla alal leen ci seen bàkkaar te yow mu bàyyi la nga fàttaliku sa bàkkaar yi passé yi la weesu woon te xam ne ni nga dafay nit nga jéem koo tuub nga fàttaliku sa mujj mbir te xam ndax xamuloo ni ngay mujjee nga di ko def sa xel li ngay njëkkante li la dese ci dund fas yéenee def loo xam ne mën laa taxe ëllëg taxa taxe ëllëg te seet sa noo ngi dem ak a dikk ngay dund ci àdduna sa mbiram sa loxo boo jubee jëmee ci yàlla texe boo ko wanee gannaaw leneen ñëw kon nag di nga ci tolloo léegi te wéegul li sëñ Tuba nekk lii ci tasawuf bi dakaar muy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom ñii na ngeen ci profité ba leen juróom ñee ñëw bi nga mënee na nga na nga forme bala ngay tëlee ndax tëlee day ñëw te bu tëlee ñëwee dootoo gis dootoo jaamu bi nga wéree na nga gaawtu bala ngay tawat ndax boo tawatee doo mën a jaamu yàlla bi nga dee dund na nga gaawtu bala ngaa dee bi nga amee kàttan na nga gaawtu bala ngaa dem ba màggat ba amatoo kàttanu jëf bi nga amee na nga farlu ci def ci sa ñaq ñaq ci yoonu yàlla bala ngay ñàkk juróom yooyu bu fekkee ne njëkkante daal ñoom balay juróom yi ci des a ñëw yàlla ko dana yërëm ba fonk turu yàlla fonk itam julli ndax julli mooy teewal teewal julli teewal sa xol ba kanamu yàlla la da ngay taxaw ci kanamu yàlla ngay dégg déglu li nga wax nga ragal ko màggal ko wet ko nga boole ragal ko ak yaakaar ko nga fàttaliku ni nga tëlee def lim la sant fàttaliku boobu nga koy fàttaliku di ko ko seedaloo dañ tax mu yëw ma dana tax mu may la kàttan ngay teewlu sa ay bi bakkan yi nga xam ne ci lor la rek la ñu nekk ndax bànneel tëb buñ ne jëy yi néew bi ay jëfa ma koy araw ci ko yii jaan la yii safara yii gaynde ñaloor yii ay jiit yii gël bu tàng yii ndox mu tàng yii jëf jëf yëpp a rafet bànneex la yoo xam ne kenn mënu koo misaal nga xam ne bu ca nit ka àggee ni mu ni àdduna meloon ci moom buñ ko seete ak ni mu mel ci bàmmeel moom mi defee day mel ne ba mu nekk ci biiru ndeyam ak bi mu génnee ci àdduna nga xam ne buñ nekk woon kaay dellu ci sa biiru ndey na mu koy bañe buñ ko nee kaay dellu àdduna noonu la koy bañe ndax tefe loolu rus suñ borom xam ne mi ngi jàngloo mbooti xolam ak li muy xalaat yépp mu xam ne yàlla ngi jàngloo loolu mu rus ko am kertaan mu sellal jëf yi muy jëf ngir jëm yàlla te bu mu jege yàlla wala mu farlu wala mu mën a jëf ba wooteeg wilaaya ndax wooteeg wilaaya te doo wàllu day dana waral mujj gu ñaaw déet wàllu yi dana waral mujj gu ñaaw na nga màggal wàllu yu ak lépp lu tax ci moom ndax wàllu yu xaritu yàlla na nga ko fonk fonk léppam lépp lu tax ci moom wala lu ñuy tudd di ko tudd na nga ko fonk fonk ndax dana tax yërmande yàlla yomb la ndax suñu borom jox na leen ay sañ-sañ sañ nañoo jëfandiku ci jaam ni sa dara du leen ci fekk sañ na fekk jaam bu leen tooñul ñu def ko la leen neex sa dara du leen ci fekk am na benn sëriñ boo xam ne mat sëriñ mas nay tawat mas tax ab taalibeem ñëw ci moom di ko tawat naan ko jiw de dañu kàngam de daf maa def nangam daf ma nangam def nangam mu ne ko jiw de bu la rayoon wàjj la ba nga ñor mu lekk la it dara ba ko def fekk ëllëg kon nag suñu borom gën a leen a jaam ñi ndax nii nga gisee ñu ëppante koy wërsëg ci àdduna ëppante koy kàttan ci àdduna ëppante koy daraja ci àdduna ëppante koy sañ-sañ ci àdduna alaxira la rawe ndax alquran moo ne wala alaxira akbaru darajaati wa akbaru tafdilan na nga màggal alquran ndax wax yàlla na nga màggal fonk ci l'islam lépp wet ko li jëm suñu borom tabaraka wa taala ni nga yërëm way doyee bi ak way ñàkk ñi suñu borom kat bu ko soob la def te la ko soob lay def te benn jaam mënu ca dara yàlla buy jëf du tàggu jaam ñi bu ko neexee mu fab jaam yëpp jox teg ko ci loxo benn jaam jaam boo leen leen leen neex def leen yoma xeer ma yóbbu leen àjjana bu ko neexee moom suñu borom am na sañ-sañu jaam ñëpp di ko jaamu yoma xeer mu dugal leen safara kon nag lu ko soob lay def ndax lu waa jàpp ko sharia li muy rëy rëy rëy encore moo leen bindee fi la mooy loi rek waaye nag sañ-sañ moom diggante yàlla ak jaam bi la beneen jaam waru faa boroxlu kenn waru faa jéem a dugg te yàlla dafa am ay xaritam te dafa maye te dafa def lu ko soob kon nag na nga laaj li jullit ñëpp boo wax ci sariya na nga wax li yàlla wax wax li mu déele wax ni mu tëkkoo waaye bul ne diw sàngam wala nga diw sàngam tax lay wax ndax xamuloo diw sàngam moom na diggante ma borom xamuloo nga dara na nga bàyyi kon jaam ñi ak seen borom mi leen bind yàlla nag wóoram du ndax xamuloo diw sàngam moom na diggante ma borom xamuloo nga dara na nga bàyyi kon jaam ñi ak seen borom mi leen bind yàlla nag wóoram du wax tuuti ci li nga xam ne moo tax ñu daje ci béréb bii mu di jëmm joo xam ne dafa bari rafet rafet yi ñu war a roy bu ñu ko yàlla teral teral ko ci zahir teral ko ci baatin terale ko melawu rafet def ko mu bokk ku rafet ku doy waar jox ko it jikko yu doy waar te jikko kat moom rek la suñu borom taggee xaritam yi mu gën a fonk mooy yonent yi إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لوقت أيوب إن إبراهيم لحليم أواب منيب إن إبراهيم لأواب حليم وإنك لعلى خلق عظيم خرجت من جب مديرا في تقولين تفرمو تقولين تدرك يالا تقولين في أم أم تقولين في فت تقولين في لم لدن جكو يرك نعم maanaam xalu sharia bi ñu tuddee ñi gën ci jaam yi suñu borom bind ba àgg lañ ca teg moo di képp ku la ëpp jikko yu gën a rafet rek moo la gën alquran nee na inna akramakum inda llahi atqakum te taqwa am na jikko mooy àndal borom béréb bii nekkoon fi amoon li gën a jafe ci ngëm li nga xam ne mooy tax a gën a mat ngëm mu di li mu yéene boppam yéene na ko ñëpp yemu ca loola nekk ca di ko jëf fu mu toll mu ngi fexe li jëriñ nit ñi mu di loo xam ne ku nekk war nga ca teg sa bët te jéem koo roy ndax moo gën a gaaw ci mucc moo gën a gaaw ci jox daraje ab jaam mu amoon ak wóolute goo xam ne ragal dara lu dul yàlla xëy na mul dara lu dul yàlla lii si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu wax ni wala su arju wala axsa siwa maliki li annahu jàll yoo xam ne ñëw leen jiide yaakaaruma kenn ku dul yàlla ragaluma kenn ku dul yàlla moom it ragal loolu kenn ku dul yàlla yaakaar loolu kenn ku dul yàlla dafa amoon képp am ngor amuk mat di nit koo xam ne fii dara yëngalu ko dara dàqu ko dara tiitalu ko di ko amoon dogu di ko amoon ak laa bi li ñuy wax makaarimul axlaaq nga xam ne mooy tax ab jaam gën moroomam suñu borom defaloon ko ko mas naa waxtaan ak nit ku ko miin xam ko muy wax ay melo yu rafet rek moom ay jikkoom ba sama rango ñu sotti ko seedaloo naa ko yàlla loolu ma wax mu di naan nit koo xam ne bii ko ci kenn ngir àdduna li muy seet ci lu mu xamee woon nit ñi xam seen daraja xam seen gëdd kenn ku nekk mu teg sa place dara taxul woon ngir yàlla waaye du neexal kenn du jox kenn genn daraja ngir àdduna wala ngir leneen loolu suñu borom defaloon na ko du xañ kenn xàqam ngir doole bi boo dee wala weex boo weex te Ahmadu Bamba nee na wala tuawid rafa bil maali xasir li ajli maalihi wastabir an faqir te boo dugal moxtaaru fihi sallallahu sallam alayhi rabbi jalla bul tàmmal sa xol nit ku àdduna yëkkati nga fonk ko trop wan gannaaw dëgg ki nga xam ne dafa ñàkk mu ne ndax suñu borom tabaraka wa taala yëggal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëwoon ci jamono joo xam ne fekk na dama damay alku ndax wan gu ñu wan gannaaw li ñu tuddee al qiyamul maanawiya maanaam les valeurs morales gisatuñu lenn lu dul li ma doon wax rek mooy matériel loolu bokk ci li gën a mën a ràppal am réew gën ko mën a delloo gannaaw nit ñi gisatuñu dara lu leen gënal am léegi gisatuñu ngor gisatuñu jub gisatuñu ragal yàlla gisatuñu farlu gisatuñu njàmbaar gisatuñu xam gisatuñu laa biir gisatuñu jenn jikko ba fonk ko ba mu jaral leen dara gisatuñu lu dul rek li leen tax a dal di mën a am léegi alal wala daraja wala bànneel loolu tax ñu dal di gërëm bu gërëm ci àndub réer réer réer ak ñu ànd ak ñoom moom nag ku xalaatoon la xiyamu maana bi yooyu le ak ruuxiya dafay ku yëkkati woon mbirum loolu la loolu lépp ñu ngi ko jubloo woon rek nit ñi ñëpp kenn ku nekk la la yàlla dundal lépp nga góorgóorlu ba am ko teewul li nga xam moom la wax taxatum maanaam progrès itam ku ca taxawal la ngir rek lu jëriñ nit ñi nit ñi ngir lu jëriñ réew mi ngir lu jëriñ jullit ñi mu di koo xam ne taxawal na fu mu toll taxaw kenn ci loo xam ne li luy yëkkati réew mi ak luy jëriñ réew mi dong la daje woon nag loo xam ne lii nattu bu ko yàlla nattoo woon la mu di loo xam ne lii fu mu gas muy loola di tuur rek loola yàlla xëy ko ci tuur rek moom yàlla xëy ko ci muy gas rek mu dem ba liggéey bi mu fi waroon a liggéey mu wàcc ab liggéeyam mat mu ngi ci boromam tabaraka wa taala li nga xam ne moo gën a tedd ndax koo terle gën koo xam gën day jàpp bu ne mu gën koo xam ne ku daan yaru ay diis diis la yaru diis diis nit ñi te du ko tawat du ko jàmbat du yoqat du dem ba sonn wala mu daj su borom defaloon ko muy koo xam ne ñëpp a ko wet ba kenn ku koy foye wala ku koy wax di ree ku nekk ak noo mën a mel rek am na foo ko teg kenn yóbbu ko kenn du ko fooye ñëpp bëggoon ko ñëpp yi dem tegoon nañ ko fu kawe fu sori boole bi ñëpp mu demee ni saa bi muy alfaxur yi su muy tegte xalifa bi banaan bu wal baxru min ayi nawaaxi ataytahu fanujibahu ma aw wal jibu saahiru moom daal géej la rek wet koo ko jóge rek lëgg-lëggam moo ci njekkam akum baaxam ak tablam mooy tàkk gi تعود دفت الكف حتى لو انه سنة قبل لم تسوى انا منه تم من اتعلى لهم في جوحي فما حمل بجي وانا بنك لهم تف لهم تبنكو ولو لم يكن في كفه غير الروح لجعل بها فليتق الله تعالى قدام يقول في لهم المجوحي رد الروح في جيسا دنا فجوحي كون نسي من رجل يلا ببنك كون لاي بطيس كون مثال الذي يودي من كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة ساقها الرحمن من شرف بدت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غير أن إلى الصدر ولذلك ممكن لؤلؤة لون فرو جمع لون بو خمنا بن رسلة أدنى sun borom moo ko tëgg tëgg ko ci tett nga waaye ba mu ko feeñalee te jamono bi ak bis yi xamuñu dara jaam mu fiire ko bënn baat ko noonu la ci am bàkke demee woon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu 那那我们也。